saa su ne koy wax ni euh, polémique di jógee ci mbir moom ci wàllu euh, am na ñoo xam dañ koy dàq ba léegi di wax ni euh, bidaa la waaye itam bëggoon nañu xam solo tam ak li nga xamante ne rek histoire yi nga xam ne rek xew na ci lislaam boñ ci mënoon baaxee tuuti oustaz. waaw moom de sit sax bidaa la ah mooy lu ñu sos ci gannaaw yonent bi mm-hmm. liifiru dara di badiu samawati wal ard yàlla moo fent asamaan fent su fentaale li fi ne si yi ci la bokk est-ce que yonent yi bàyyi woon na fi sit est-ce bàyyi woon na fi télé est que bàyyi woon na fi rajo est-ce que woon na fi oto kuy gëm-gëm lu yonent fay dem waral gëléem bu la wangitoo nga dee ñu suuli la xamuñu lu ñuy wax léegi man laaj la Omar Amadou man laaj la sa papa baal baal ma rek sa papa nelaw bàyyi fi magasin bu mu luwee ay gaay ñu cay jaay sàngara sa papa nelaw nga nangu magasin ba def ko jumaa du biddaa sa gannaaw papa fa tabax de baax na wala baaxul ñaw yow mi naan biddaa da fen biddaa mooy lu am ci gannaaw kilifa gi te amuloon ci bi mu fii teew ah tey sit yi mu ngi dem ba makkatal mu karama dem ba madina di génn àdduna bi te yonent bi woote mëntoon a génn màkka mënta génn madina loolu ko koy tere yàlla yónniwul yonent bi pour mu développer monde bi def daf koy ni pour mu développer jikko yi wa innaka la ala xuluqin adim pour mu développer jikko yi monde bi yoonam nekku ci yàllaa ko diriger moo ko moom bi ci des ashura xam nga arab nga ma dóor waxu ko ma olof de da ma waroon ne fukkeelu fan déedéet tuddul tam ñetti fukkeelu fan mooy ashura dix lay firi xoolal le premier le deux le trois le quatre le cinq le six le sept le huit le neuf neuf ci tubaab mooy juróom-ñeent taasuwaa la arab di wax mooy juróom-ñeent juróom-ñeenteelu fan ci weeru tamxarit bi mooy 31 décembre ah mooy 31 décembre ci ci décembre waaw ah, ci weeru tubaab 31 muy 9 mooy taasuwaa ca ëllëg sa di le premier janvier mooy Ashura Ashura mooy premier janvier ci ñun ci la yonent bi gàddal fekk indiwu ko fi indiwu ko fi fi la ko fekk. da ci gàddaay rek ak waa këram alin am ci tolof tolof nàcc geeg góom yéeg bis ba na mu métteeg naa Omar ne ko Moustapha li jar naa bind bàyyi ko ci archive yi de mu ne arixoo amral muslimin kon bind leen ko foofu la atul islam commencé mais fa lañ ko fekkoon ñun dañ caa xewle rek ci bis bis bi fi lañ ko fekk muy Ashura muy fukkeelu fan bi nag muy première année bi xam nga nag luy coow li Muntaxa du taaje boon ji du bidaa du ganaar yi du jigéen ñi niiru góor ñi góor ñi niiru jigéen ñi du ci dara xam nga luy dëgg dëgg dëgg du jeexal nañ at kañ la asura ah ban àllarba du mercredi bii di ñëw la du mercredi la mooy le 10 fukki fan ak. waxuma loolu de. ah ci mooy le dix. waxuma loolu du mooy asura. du mooy fukkeelu fan bi. léegi kon àllarba boo jeexal nga at amul at mu jeex ngay dugg at mu bees taxawal seetlu wa fi anfusikum afalaa tubsiruuna teeyal mun taxaa duggal ci ruq seet at mi yëpp at mu màgget mi mi nga jógee ba nga départ léegi loo ci wax ci lu bon loo ci def ci lu bon loo ci dox ci lu bon nga jéggulu ko sa borom seet li nga fi def ci lu baax dox ko fi lu baax wax ko ci lu baax nga santee ko sunu borom fas yéene at mu bees mii ngay dugg nag sa lépp baax loolu mooy jeexal at dugg at Amadou loolu mooy jeexal at dugaat soo at mi jeexee pour nga génne asaka doo évaluer am déet da ngay évaluer yow itam bi nag bàyyil peñi sikkim bi rek toog dangay ngay éva waaw bul xoolal xalifa waxuñ nga peñe rek toog ah, ak di ko diw dañ ne la évaluer waaw hijriye at mi yëpp nga évaluer ko loo mas a dox ci lu baax loo mas a wax ci lu baax loo mas a def ci lu baax nga santee ko sunu borom. fecc mi tëgg mi gaa ko sos mi loolu bokku ci. rey nañ ci ay yonent baal nañ ci ay yonent xewoon na ci la ca xewoon amul solo at mi nga génnee li nga ci defu wax ko dox koo am solo ndax baax na waaw kon mi ngay dugg na gën a baax ndax baax na déedéet. kon bi ngay dugg fexeel mu baax te nga jéggalu bi mm-hmm. lii mooy jeexalaat génne asaka nag boo ci xale bi génne asaka laa wax Amadou asaka génneel asaka parce que loolu mooy farata mille francs yu ne juróomi dërëm la un million bu ne vingt cinq mille la deux millions cinquante mille 3 millions 15 euh, nu mu tudd 75 mille 20 millions 100 mille li yombul. ticket la may la wax génne ko ci nga lànk ni du génnaa sa sa gel ñëw jël ko borom xaalis yu bari nag kaay ma wax la de borom xaalis ma ñëpp nag waaye ñu ci bëri dañu mën a doxaan nag ñaaray lekk seen xaalis jigéen ñi jëbarkat yi. Mm-hmm. gis nga bu élection jublu si jubarkat yi ne am nañ traite layel tey gaa yi dee de ma ne rey leen leen rek ku dimbaliwu say bokk kay dimbale jàmbur reyal nag wu ñuul reyal nag wu bula reyal nag bu werte suulal nag wu deewul subhaanallahi luy noyyi nga gas ko suul suuf di ko xëx muy wañaaru ba dee ba dee ci bam suuf si ndax bëgg a jiite réew mi ndax bëgg doon maire ndax bëgga doon député ndax bëgg a doon ministre foo ko teg waaye addada waay tey leen ngeen ànd ak yàlla kon bu la ci kenn nax cere yéeg taaja boon yéeg yooyu yëpp c'est des détails at mi nga génnee li ci rafet sante ko yàlla li ci ñaaw jéggalu ko at mi ngay dugg fexeel sa lu rafet gën a bëri sa lu ñaaw lii la ñuy dee at at mi di nga génne asaka nag soo paree nag ñu doo ko wax ci ray bopp jërim bi nga évaluer ba pare xam li nga baax li nga sant xam li nga bon li nga jéggalu ñu doog laa wax nag ni bii di dugg itam nag raayal bopp jërim commencé fii def nii raayal bopp jërim yaa ngi koy jox dara nag ñu sëriñ Abdou ndeysaan bu tamxare jotaan ci saalu sëñ Babacar leen ci suuf ni ñuy seen papa faatu nañ ñëw ñi ci ëpp seen bàyyi deewul barki yàlla dix yee tax ku raay sa bopp jox la dix mille sa papa daa gaañu nga ne yàgg na ci sa papa ngi dund kat waaye gannaaw dix mille yi il faut nga rey sa ah, yu bari kum raay rek jox la kum raay rek jox la ba ñëpp daj yow sa papa daa dee yii man bi may ñëw fekk na sama papa dee ba yàgg. sa papa dara dellu ko nga raay bopp julli jirim julli nag ñaari rakka rakka bu ne nga def fukki xul ak benn jàng mil xul bokk nga jël ay yére may ko ñu amul yére dootoo jeexal yére koo mën a dimbale nga dimbale ko lii lañ soxla ci asura am déet kon déparé nga at lu baax déparé nga lu baax de fexeel nag saxoo ko lu fi duggati ci at mi lu ñu war a def nga góorgóorlu su gàmmu ñëwee nga góorgóorlu su màggal ñëwee nga góorgóorlu su ajji boo ñëwee nga góor góorgóorlu su gàmmu njaasaan ñëwee nga góorgóorlu su daaka ji ñëwee nga góor góorlu ak ak ak gàmmu ñeseen nga góorgóorlu ak ñi kenn xamula ah te ñuy gàmmu man mm-hmm. nga man kenn xamuma te maa ngi gàmmu gàmmu jaaykatu radi galaas ndox lu dégg loolu mooy assura mais cere yi jërul xuloo di ngeen moytu nag cere mbomb cere jooju xalif sa sikkim bi bis boo ci lekkee dangay ngay xëy dootoo ko gis moo taxit moo la tax a xiiboon waaw cere mbomb musiba la cere mbomb parce que diwlin bi ci nekk tax te lu lu ne lañ ciy jaxase dana am tàndarma raisin suukar haricot des na beneen de ah beurre tamaate diwlin moo rose a ngi wax moom ak diw des na beneen bulet mu ngoog li nga rose dégg nga euh, germaine day am bulet waaw yooyu fromage yooyu yëpp ku ko boole ci cere ah. boo ko lekkee xururur joo dégg mu ñël téeméeri fromage nga boole ci biir bi te yonent bi daawu ko def mhm. cere simple dara gënu ko waaw cere simple du daw biir waaye cere ji mhm. mbomb mi kii nag laa xam ne moom biiram mhm. dara du ko wàññi dara kii kii nii. yow saaliw saaliw dara wàññiwu ko dara moom cere de kii biiru gaynde la biiru gaynde ak meew miñ ciy boole waaw. alors que euh, gaa ñu ngi koy lekk mais ñu def ci sago rek. ñu def ci sago rek. parce que itam ñiy togg itam ñu bàyyi ko xel xam nga nit mbir mi li ci gën a garaaw muntaxaa mooy booy lekk day saf ci làmmiñ ngay lekk muy gën a saf. boo jógee nag mu safaat beneen saf waaw kay bokkul ak bu làmmiñ bi est-ce que xam nga cafka àdduna làmmiñ a koy def mhm. caf àdduna làmmiñ koy def soo sexee ceeb la muy saf ci sa làmmiñ la ne su yàlla su neexee yàlla mu rocc caf ka gi loo lekk mu lewet yàlla moo yéeme ah de xanaa yow nga feebar xalif ba ci góor gi sëñ Muntaxa góor gi ittiwoo jabar xam nga ñoom Rose ñii man su doon ñoom du jur doom xalifaa ngi ne ma xajj na Amadou xam nga lu tax gannaaw doom du baax lu ma ciy jur ki ko war a baaxal mooy yaayam te yaayam pour doomam baax mu seddal sama xol waaye bu dëkkee ci tàngal ko fu muy jëlee doom ju seddal xolam fu muy jëlee kuy seddal sama xol te jigéen bu woon dana fonk jëkkëram ndax bu jëkkëram gisulum xam mën naa daw dem yoonam. kenn du ko tuddee caga bu góor. waaye jigéen ju dem dinaan day cagatu ci boo demee. am déet kon toogal ku ba sa ndey ba sa baay ndax sëñ Muntaxa mii ci siddu jàmm ji info nga ba sa ndey séyal ko ba sa baay séyal ko na mun Muntaxa di sa baay di sa yaay di sa jëkkër loo waroon defal sa baay defal ko ko loo waroon defal sa yaay defal ko xolam di sedd koo fa jur sa xol sedd koo fa jur sa xol sedd mais léegi lu ñuy wane suñ demee boo war a tëdd defe nga ne fer yu toll ni ab goj ay bëgg bàmba diwul ay fer laa dañ koy wékk xajul ci biteel yi nga mel ni goj booleem wi pour nga xëlëmtu sa jëkkër mooy xoymet ko xoymet am moom la yenn xale yi xam xëlëmtu ñun moom lañ xam ci daar yi nga xoymet ko sol séer bu bon wóotoo si takk say fer ñaari fe ñaari pera am per bi yóbbu nitu yàlla ci yàlla kóorus kii kii mooy yóbbu nitu yàlla ci yàlla mu des fer gi nag mooy bi Amadou yor ko dagg de xam nga bi ci ndigul jigéen moo yóbbu góor ci bakkanam Mm-hmm. muy bëgg-bëggam waaye kii kii boo ko téye ba sukk ci kanam sunu borom mm-hmm. per bu dóor mu wax ak yow parce que da ngaa fas yéene yéeg waaye fer gi ci ndigg li dafay yóbbu borom ci bëgg-bëgg bakkanam est-ce que xam nga ni wax naa ko ab lay mais góor am na ñett jigéen am ñett góor am na ñett jigéen am ñett man nag jàngale laa man sama làmmiñ du rafet ñett yi góor am mooy gannaawam di taatam ak awraam geenam muy ñaar yan la ci am li mu lekk mu ngi koy génnee ci gannaawam du benn bu dee saw fu mu koy génne ci awraam su dee mën yi fu mu koy génne ci awraam ñett yi la am jigéen ñetti la am li mu lekk ci gannaawam la koy génne comme góor su dee saw ci awraam lay sawe suy génn suy génne règle ci awraam la koy génne ku ne am nga trois leer na walla leerul trois plus trois égal loo ci xam. loo ci xam na noo ko gisee seetal loolu te teewul nit di tiitaru. Hmm. su tëdd jotee nga xoy mit sa jëkkër takk say fer séer bu bënn di sëgg sëggulu ci ron lal beeg armoire. gis nga nit ñi ñuy am xel yi di dox. la ma waxoon ndaw sa est-ce xam nga lenn jigéen am na mën nii waaye dafa jaune weexul maa la ko wax dafa jaune góor mëniyum dafa weex tàll fatt taraj comme laalo kaay ma wax la mëniyu baatu arab la min mëniyin yum naa alquran la firéeguma ko ci olof li ma wax ci araamu ngeen ngéen di ree bu ma ko waxee ci olof du dara mooy lu weex te fatt mel ni laalo muy mooy mëniyu su dee mësiyu booy foog jigéen mooy ndox mu weex moom di génn mel ni nestale jaru sangu am na ndox booy gis léeg-léeg booy saw boo sawee ba pare mu génn weex mel ni goloria jaru sangu mësiyu raxas wëdd yu raxas ponkal mi sangu mooy maam ma néew. Mm. maam moom. laabe wu rek waaw waaye nag ki façon la ko la ko sabab bu dee mën bu dee mën yu feebar. benn militaire mas na ko laaj. Eh, ci geeru Casamance bi la bokkoon mooy ñu doon ne ci ak rebelle yi mu tiit ca nag ba mën yum di sotteeku tous les jours mu julli jumaa sëñ Babacar fekk ma ci daari moo man dama am feebaru mën nii day sotteeku rek ma ne ko tojul njàpp yàqul julli du waral sang ndax mooy toqalu amee toqalu sawit du war a sangu foo toll saw maa naan tur tur tur di ñëw rek doo doo amul raxas du toj njàpp yàqul julli su dee masiyu loolu bu dee ko am feebaru cabinet nag ba ba day kuusu sitit yi téye woon euh, bërëb bi moo yolom cabinet yi ñëw rek téye leen ko de li ma leen di xam-xam la de mm-hmm. bëri na ku ngeen ko tegal mu di ko seetaan danaan lii dal na ma xaw moon luy àtte bi man maa ngi xarit day kuusiw fu mu toll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 ki nga xamante ni tey moo di euh, Kounkandé gannaaw bi mu waxee xam wàllum xar géej gi fu mu ne nii nag nee na da ciy def entrée cinquante mille pour ñu bëgg ñëw seetaan ci. Eh, xaalis lay wóor hmm? man daal su doon moom. Hmm. xam nga xar géej gi daa hmm. ko nii. xanaa gisul bato yi niñ koy xare gaal buy ñëw day xar géej fu mu jaar day xotteeku seetlu leen loolu. ñun soxlawuñ xar géej gi ba mu ca tuddee entrée cinquante mille la ko narul daa xam ne mënu ko. seen TV la ne ñooy def direct bi de ak waa seen buzz. ma ne man ku ko mën a def sama yoon newu ci man ki ma gëm gëm naa ko. ki ma bëgg bëgg naa ko. ki ma wóolu wóolu naa ko. ti ku ko bañ ma bala muy yàlla. Mm-hmm. ku bañ yàlla ma bala. yàlla laa bëgg moom laa wóolu mooy sama buur kooku di wax moo ko bind bind géej gi bind leen yéen ñépp nañu bàyyi fooye yàlla kan moo koy jox cinquante mille ci xar géej ban doomu aadama ñu ñu nekk ci jamonoy corona luy suñu yoon ci xarum géej xanaa demoon ut camion xaal xar ko xale yi dem di lekk ci buntu géej gi moo gënoon waaw yow ngeen ne mën naa nangam ñu ne waaw nga wëlbati ko ne cinquante mille xam nga ne loolu day reeloo ni ñi day naan kon kii xaalis la bëgg daa bëgg buñ ko joxul xaalis mu ne gannaaw fayu leen ma du ma ko xar ah loolu rek la bëgg yéen ñim ne mais na sidi ci monde bi yëpp dem man lu ci sama yoon du tee yàlla rek laa gëm moom rek laa dara la ci mënul dara su ma daal li ma koy ñaan nañu toxalal géej gi mu daw ba sori yéen ñi amagul kër ngeen dem dëkk. am déet du loolu gënt gënul su ma nee na arrière géej gi ni ko mam si daan li maam defe woon di ko puus ba makki ne ko ça va c'est bien baax na yamal foofu mu taxaw ñu dagg ko ay terrain jox nit ñu dëkk ko amul kër am foo dëkk waaye xar géej gi te Moussa xaraloon ñu ko ba moo labloo na ñun ñu jàng loolu bu yàgg luy xar géej xar géej dara du tus Cheikh Al Hadj Mal nee karaama karaama ci góor nitu yàlla mu ngi mel ni góor guy gis règle innal karaamaati xaydun li rijaal Maodo ko bind règle la góor gis régal ma ngeen ko gis ciem yooyu xar géej soo dawalee oto ci géej gi danga nga bato bi di dajeeg gaal ni te yett gaal yett bato tubaab beneen xeeta defar oto daje leen rek la waajo waxoon Seydi Hadji Malick ni ko mën nag si sama sëriñ day naaw mu ne ko akoon ah, di sa sëriñ gorewul yàlla wàcce ko ci suuf jox picc ci kaw mu goree di fekki picc ci kaw sa sëriñ a ñàkk ngor waaw loolu la ko Cheikh Al Hadj Malick waxoon waaye géej gi jën yi ne ci bato yi ne ci jalub yi ne ci nit ñi di ci tukki nga di ñu ko xaral ah xam nga ne manoo ko de da ngay wax rek bi nga tuddee cinquante nga. boo amoon xaal sax yónni ma ci benn ma jël. eh damay xar géej gi xaral lu ci seen yoon sëñ Bamba taxaw ci géej gi julli ci kaw géej gi sujjoot ci géej gi suñu mag ñi defal ñu loolu. ñu ñu ñu gëm loolu lépp ay caaxaan la bi nga ne cinquante mille nag nga ko nga miir ba mënatuloo ko bàyyi leen caaxaan yi bàyyi fooye may yàlla yi bàyyi fooye mbindeefu yàlla yi bàyyi fooye jaamu yàlla yi nañu dellu ci sunu borom ku dee fa nga jëm de am de mm-hmm. ku dee bàmmeel de dajeeg yàlla rek kon ñu bàyyi caaxaan xar leen ko buutu sura ko am cinquante mille demal jox ko euh, jox ko <laughs> barki yàlla yaa neex yow fukki junni ca élage mi moomun fukki junni xam na ne am na lu ko war yaay ñii fi toog ñoom rose mm. ñoom bëgg bàmba mm. sit yi ñuy def yëpp gaaw commencé yi ñuy def nii pour gaaw am xaalis yóbbu jox soxna si rek yow nga nekk fii naan waaw man na maa xar géej waa xaral yaa géej gàngoog yàllaa ngoog yaa ngoog géej gàngoog xaral jërëjëf xaral bu baax waaye cinquante mille de doo ko gis waaw cinquante ku kompaloog yow ci affaire moo affaire am la moo xam man de yàlla duma ko kompaloo man Iran yàlla duma ko kompaloo moom laa gëm ku ma yëg ne bëggatoo yàlla ma bala loo yor ma ba man yàlla rek ki ma def mën niiw def mën nit may wax ak yéen kooku danaa ko yemale mbindeef fan laa koy teg yaa ngeen jëf